Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, لله الحمد لله في البداية والنهاية وصلوات الله وتسليماته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم mbokki julit yi ñu di nuyu ci turi sëriñ bi cheikh mouhamad fadilu mbàkke ma itam cheikh mouhamad fadilu mbàkke lañ ma tudde waye xam ngeen ni fuñ nah, dajare ak suma mbokk yi la kaddu ga man lañ koy jox loolu motax ngeen dégg suñu imam bu mag bu bi bile eh, serigne Murtada jo mu waxe ko nonu serigne bi ñu jox ma ndigal ma sanni kaddu ci seen baat ak seen ndigal ndigal hmm. eh, nak dafa am solo so demee ci ulama tafsir yi ba wax diggante Musa ak Firawna ñu niti Firawna ya sanni seen bumi ya mu mëna jibar ko mu mëna def jaan di dox dañ laaj Musa Musa ni len def len ndigal la len Musa ni def len motax mu mëna def waaye bu Moussa joxewul won nesin buñ sànnee seen buum ya du muna a soppaleku jaata lolou day woné riyuk ndigal waxuma la ci kilifa gu tolni Cheikh Mouhamadou Fadilu mu joxe ndigal ñu ngi leen di sant ci turi serigne bi serigne bi tam contane na lool ak ñun talibé yépp ci teraanga ak itam fonk gi nga xam ne moom ngeen ko fonk boole ko ci bés bile te sax dafa mel ni moom bés bi moo ko moom te sax loolu la moo ko moom ndaxte bu bàyyi xel li maamam wax fii léegi foog naa ni di nga xam ni bés bi moo ko moom te am na ci wàllu rëy ndaxte Sëriñ Tuuba moom fi teg tànkam mooy wone ni mbindaan la ci yonent bi te loolu daf ko wax lu bari ci mbiram mbindam soo ko jeexaatee rek danga fekk loolu su demee ci wax ni dane yonent bi antal karimu anal xadimu nga yëg ne dahran udimu fi gasanaay yonent bi antal karimu yaay ji tedd ana xadimu may sa liggéeykat nga yëg ne dahran diirub jamono udimu dinaa sax fii ka ci yow yonent bi sana i di la tag te mawaahibu naafi baas bi wala moto bi mooy salaatul fatiha allahuma ya akramu salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim mooy moto bi moom la bind salaatul fatiha boobu moom la wooy téere boobu di mawaahibu naafi tuddee ko lelay may ay njari soo demee danga ko fekk itam mu ne ya ahlal bahri ya ahlal barri ya ahlal bahri oo lil bahri bahri sakat. yeni nek ci jéeri ji yépp te mooy kaw adduna bi ma ngi len di o yeni nek ci bir géej gi yépp ma ngi len di o yene nge daw di dang dangi jëm fenen oo joo lagg leen lagg leen mooy toon ngeen ñëw fan baxri saqaay ci géej gi nga xam ne géeju tabe la mooy yonent bi ñëw leen mu neeti ngeen yëg ni man Cheikh Ahmad Bamba dama organise suma adduna yëpp at bu nekk juróom benn weer lii la juróom benn weer yi la salaatu sitta benn dixième xasaayit la ko wax ma waay bu nabi salaatu sitta bi mat sitta taati i ba'da saay ngeen yek ni man damay am juroom benn weer yoo xam ne salaatu ala nabi rek lay def am juroom benn weer yoo xam ne damay tagg yonent bi te dafa tagg yonent bi ba ba mujj mu ne su daa yëpp jeex na sama daa yi ŋàcc na suma xalima yi jeex na te bentee li ma bëgg wax ci yonent bi mënuma ko wax xaara midaadi xaara fuhaadi hadmat ihadibil budala gara ngaccina médaadi sumada yëpp bind naa ko tagge ko di bam jeex te bente xaarafu haadi su ma xol baa ngi ñuri ñuri ma bëgg a wax ci yonent bi la la nekk ci suma xol ma bëgg ko wax ci yonent bi mënuma ko wax amul réew mu ma ko wax beneen bi mu neeti raamal waraa nayla fadlin musrihina lahu ngeen yëg ni wal fadlu inda rasulillahi mu ni man Seex Ahmadu Bamba maa ngi gis doomu aadama yi ñu ngi wut ay ngëneel di riite ante di daw di dem bu ma leen laajee ñu ne ay ngëneel ngëneel la ñoo ut ma ni leen kaay leen ma war leen fi ngëneel nekk musrihina lahu ñu ngi riite wante rek di daw di wuti ay ngëneel ma ne leen kaay leen wal fatlu ngëneel bi ngeen di wut inda rasulillahi xaraaw fa yonent bi la sax kuy wut ngëneel demal nga wut ko ci yonent bi foofu la nekk mag ñi nag méthode bii dama koy wax ci radio bi bés bu nekk du ma dee wax ci xasaayit yi suñ mag ñi ndaxte nekkul suma programme ci radio bi suma programme ci radio, bi moy firi alquran ak hadithul quran fil quran waye so len baye xel beri dem teroo ba léegi wax ci alquran ak yonent li liko li ko wax yalla li wax yonent bi nak ci alquran ci ci magal ko ak tagu ko ak fàggul ko ak jox ko ay ciakute amul kenn ko ko mun wax mag ñi lol lañu gis nak ñu ñew ndar képp yonent bi xam nañ yonent bi ci la lépp nekk ñun ñëpp bëgguma laal mbirum maam ndax yenn xam ngeen ma it méthode ba ma fa am waaw xam ngeen ni su ma ci duggee dana mel neneen waaye maa ngi wax ci làmmiñi sëriñ bi sëriñ bi gërëm nañ la ndaxte yaa ñu fi isil